ginnaaw nuyoo bi ñu sant leen gërëm leen bu baax a baax ci ànd bi tey jii Barcelone Inter de Milan mu nekk choc boo xam ni choc bu am solo la ci ñaari équipe bi waaye tamit choc la boo xam ni xeex la boo xam ni daanaka àtte ko yomb ñoom ñaar ñi nga xam ni kenn ku ci ne victoire moo lay arrangé défaite soxla woo ko ci tey jii nga xam ni match bu Ligue des Champions la boo xam ni mooy choc bi nga xam ni ñaari tour yi ñu boole yëpp muy démb ak tey di ay surni bii mooy bi nga xam ni. moo ci ëpp doole bii mooy bi nga xam ne tamit moo ci nar a daanaka xare badar ci ñetti équipe yoo xam ne bokk nañ ko euh, ki nga xam ne mooy Bayern ni waxatu ni xam waaye nag lii xëccoo bi dëgg-dëgg mooy Inter Barça ñax mii nga xam ni moo nekk ca Camp Nou di stade boo xam ni daanaka roose nañ ko ba mu tooy xëpp stade bi euh, méngoo na ak jamono méngoo na ak maanaam benn victoire boo xam ne moom la gone Barcelone yi bëgg waaye tamit ña ngay yaakaar ci li nga xam ni mooy compo bi nga xam ne moom lañ nara a teg ci taabal euh, day ñëwaat ci li nga xam ni mooy défense bi bu demee ba nga xam ne mooy ca kaw euh, bu ko defee ñu man faa am ki nga xam ni mooy Ousmane démbale ak ki nga xam ni moo nekk Lewandowski euh, kii di ki nga xam ni moo nekk Kessie day dem ci fi nga xam ni mooy digg terrain bi ndax Franck Kessie moom baax na lool ci milieu terrain boo xam ne bu saf sàppale doon euh, Pedri ak De Jong tamit daanaka euh, danu koy euh, wër nga xam ne bu ñu ko wëree day tax Barcelone am benn militaire boo xam ni bu saf sàpp lay doon militaire boobee tamit ñi am xel ñaar ñu def ko ñeent ñoo xam ni ñoo cay nekk ci li nga xam ni mooy militaire bi en ce tamit am nañ yaakaar ci compo probable bi nga xam ni moom lañ yebbi léegi mu bokk ca gone yi nga xam ni ah, dañuy ah, doxal loolee nag ndax coach bi dina ko doxal ah, coach bi mu ngi nii taxaw ni jonn bu ñu demee ba daanaka 17 quarante cinq dina belli compo officiel bi nga xam ni bu boobaa danañ leen ci dikkal ngeen mën a xam Barcelone bi taxawaay bu mu am ak lan euh, yan xeer la teg euh, pour mën koo dóor ki nga xam ni mooy internet mi la loole euh, bu 17h45 jotee ci Aladji Malick TV danañ ci andi ay leeral yoo xam ni yu bari la Xavi moom daanaka pare na keneen koo xam ne tamit taxaw na ba pare mooy Lewandowski nga xam ne match bi matcham la ña nga ko cay xaar ci ay bi yoo xam ni yu am importance la bu fekkente ne gars yi tëj nañ li nga xam ni moo nekk défense bi nga xam ne défense de la war a doon fee ci Camp Nou ci kanam tuuti à partir de 19h mais 17h45 Euh, compo officiel bi lañ leen di génnal